guys what up guys hi sama guy <laughs> what's up my nigga yeah bëggee ñëpp bëggee ñëpp ñi bëggee coono you know what I'm saying sama subscriber yëpp you know what I'm saying Parcella ho what up <laughs> Pape Daouda may sama gaay bi yëpp yëpp yëpp ñi bëggee ma la coono te gisuma leen ma leen jàpp loxo ñëpp laa shout out you know what ji fi ma nekk moom waaw tey ji damay waaw waaw mooy loolu quoi tey fi ma mooy xam fu ma kii kii am doole kii kii rek am doole kii a ragal kii nii xool ki fi def lii nii waaw kii rek a jara ragal ku kii doo lenn te kii nguuram rek a éternel ku defe ne sa nguur éternel na ah, yaa ngi nax sa bopp kii rek a fi ne kii kii voilà muy géej Mambulaan moo tax li ñuy def duñ ci ragal duñ ci tiit duñ ci maas parce que euh, balaa ma ñëw si sujet bi ah parce que dama bëgg xam ni dama bëgg gaay ni yàlla moo ñu sàkk mooy suñu wërsëg mënuñu gëm yàlla pare duñ ko wóolu ay maanaam tey ji boo nekkee si opposition bi doo am dara wax yooyu mooy lan yàlla moo la bind sa biiru yaay li nga war am ngay am li nga war am ngay am war am ngay am sa laay sa living sa time living li nga war am ngay am donc looy ragal ci nit la mooy ay Macky Sall la mooy boo gisee loo xam ne teguwul dénoncé ko tu vois alalu dara alalu tee dee ana ay Xadafi ah ana ay Michael Jackson ah am na tant de Richard yoo xam ne ñu dem amee ko xam-xam naan death space nobody la mort n'épargne personne donc boo xamee xool vivre free soit libre man toujours moo xam ne toujours moo xam ne man mi ama billionnaire milliardaire la gars yi yow foo teg loolu noonu leen may man dama may bët gis ku ñàkk bët teganu ma ko ma gis sama papa yaayam dem nañ dama leen gën may jur dox ñaari tànk am na koo xam ne mi ngi raam am na koo xam ne géej bi ma jàkkaaroo di ko gis nii mosu koo mosu gis il ne l'a jamais vu day dégg géej nii rek ak mbar am na ko xam ne mosul gis Balla Gaye mosul gis Modou Lo tant de faveur que Dieu a donné am na ko xam ne mi ngi wër àll bi di naan pour am doom am na ko xam ne ngeen ngi dafa yob xamul bànneexu jógal ak leen tant am na ko xam ne tey mooy loolu buy saw day souffrir yu la yàlla def loolu yu la yàlla jox yàlla teral la donc man yàlla du ma teral may teral bopp nit feesul sama bët bàyyi faal nga may jaay boo am boo ñëw di ma a f te je parle de Moussa Solo Taïs Sassirone mais Taïs moom dafay génn moo tax mooy Taïs moom rek la ñuy tontu bon le gars il a dit que Sonko bu mu demee Casamance daa dem Casamance bu mu demee Casamance bu mu paree kii ba dem kër yaayam il a de des rebelles dans dans sa maison là-bas quoi léegi man li may laaj mooy man li may laaj mooy parce man ma nekkee booy ma nekkee booy bu ñu ma Casamance damay tiit xam nga dama tiit parce que damaa wax ay man je crois que ma du nit day soppalu ku jinne wala dafa am ay pouvoir mystique affaire noonu may ragal nag naan non rebelle du nit ay jinn yaa rebelle ay jinn ndekete bi ma demee ba màgg xool rebelle ak level bu rebelle quelqu'un qui se rebelle mooy maanaam kuy fippu koo xam ne dafa gis benn affaire mu metti ko mu fippu tu vois comme ça tey jii teg nañ benn affaire nii man neexuma su ma rebelle moo tax ñu benn boy il se rebelle maanaam daan woy fippu yi donc c'est c'est nos frères le terme que Sonko dem chez nos frères ay rebelle c'est un terme bon moi c'est pas le quoi non c'est quelqu'un qui se rebelle parce qu'il a il n'est pas d'accord sur certains points il le manifeste est un rebelle tu vois qu'il a en venir aux armes d'accord deux solutions, mais jël donc on va essayer de le ramener à la raison donc Sonko dem na accueille est parce que c'est des Sénégalais comme nous c'est nos frères c'est pas des rebelles c'est nos frères en plus donc nous dem euh, entamer dialogue falaguñ ñoom tamit jëlaguñ et ce si ñoraa de Moussa Silo ne la loolu ne ay rebelle la recevoir ce gars là vraiment dafa mën dafa jëfur quoi chaque jour il est à la une des journaux quoi te il il vous ça boost c'est pour euh, dire des merdes quoi ngeen baal ma si terme yi donc Sonko jaala ma pour man lii coow li la ma la ma euh, recevoir suñu nos vous appelez rebelle entre guillemets nos frères euh, ñu nekk Casamance li gën a métti xam nga la moom gën a bi fi Barack Obama ñëwee ah, La catégorie de la part du président ne eh ñun pareeguñu pour ay ay ay affaire góor jigéen pour affaire yi Sénégal c'est un pays euh, boo xam la majeure part de la population à 98 des musulmans pareeguñu pour affaire góor jigéen ko fi wax on attend on s'attendait à cette à cette réponse mais malheureusement qu'est-ce qu'a dit le président non le Sénégal n'est pas encore prêt maanaam pareegul pour adapter loolu noonu quoi c' C'est une mauvaise question on ne s'attendait pas à ça C'est nga que wax Moustapha c'est Lo tu vois euh, nga bàyyi son quoi parce que ñun fu Sonko xam lu mel daa mel ni Sonko pour di dëkk Moustapha Sy Lo def kabaal bi Sonko pour di dëkk du jóge suñu xol xam mel moo dafa mel ni benn xale bu jigéen bu bu baat ci benn waxambaane benn benn ndoxu dem benn góor yaa ji di ko tere bàyyil diw bàyyil diw xam plus nga koy traité naan kan bàyyil diw rek xale bu jigéen bu dee bu dee ko topp la xam nga xam relation moom di may say parents d'accord ci nga siy daj souffrance tout le temps da di gën dem parce di ko gën def ay sacrifice pour dem là seen politiquement li def baaxul parce que politiquement il fallait l'ignorer quoi si vous aviez ignoré Sonko là dina am dara quoi parce que xuloo ñaara koy def quoi mais su waxee ngeen tontu politiquement ay coono ngeen conseil kii wuñu tu vois da ngeen waroon bàyyi rek ko noonu muy wax ngeen libéraliser ko wax ngeen ah, gongo dëgg booy bi il est talentueux ignoré ko comme ça il pas de buzz me demande ndax ay nañ Moussa Solo beneen bi nee na Sonko dañ ko war a yóbbu tëj ko parce que le plus grand wala saa jaja ba jaja jaja gis nga dama lay wax leen Moussa Solo jàpp ngeen Karim Wade mu seet ngeen jàpp Khalifa Sall mu seet mais avec Sonko ça va pas être possible booy boo leen ko jàppee gars yi wàcc si télé bi parce que day flagrant bëri na moom rek lu waay lu waay am jël mais boo leen ko jëlee gars yi dañuy wàcc dañuy wàcc de man damay wàcc kenn wàccul damay wàcc injustice boobu moom moom moom ba danaa ci boo gar sama bakkan damay wàcc bu ñu jàppee Sonko bu Khalifa Sall bu leen ngeen créé seen avance kees ak ay preuve ngeen teg ko Karim Wade Panama Papers yooyu yooyu mais Sonko pare na ko nga xam mu ngi seen i wujj feesal Casamance dóom daf ko dóom fu mu dem yóbbu ay milliers de personnes te yorul cent francs zéro achat conscience nga xam ne menace ngeen da ngeen uh, ko mos def boo leen ko defee mooy loolu noonu quoi bon ne ñii ñaan mooy Sonko falu mais nga xam bu Sonko faloo bu Sonko faloo c'est pas une baguette magique parce que bu ñu falo faloo France dinañu bàyyi parce que naan ah léegi da ngeen di jéem a demal seen bopp dañ leen di seetaan. multinational yu ñu bàyyi loge franc-maçonnerie gi dinañu bàyyi ñëpp ñuy bàyyi ah, ah, loolu loolu xam euh, ñu ànd ak ñu noppalu parce que il parce que gars di Occident bi duñu bàyyi ci loolu noonu parce que naan comme que mën ngeen bay demal seen bopp def leen bu baax bu ñu wan a yaafuus nañuy xëy heure di wàcc heure di xëy heure di wàcc heure respecté suñuy horaire de travail tu vois wàññi waxtaan yi ay lamb yi ci travail ci bu bërëbu liggéeyukaay bay job gëm suñu bopp gëm ni kat on peut sortir avec nous by ourselves Sonko for life Sonko for the fourth president gars maa leen di bëggee ma la coono am maa yi amul solo jamais yi amoon ko fil da nga ko abonné loolu quoi mais li ñuy yëy mooy lan wax dëgg apporter notre pierre à l'édifice képpitulaat dañu ñëwaat ci yeneen vidéo wax ci làmb wax ak lépp quoi Moustapha Cissé Lo yàlla nga enzim ba élection yi passé